woon nañu fa parmi eux ñu daal di ci gis le chanteur du peuple Wally Ballago Seck moom nag mu daal di fay benn paire de lunettes à 7 millions de francs CFA aussi pour sa femme Soxna Aïdara wax nañu ne Wally Ballago Seck daal dina koy jëndal benn paire de lunettes ba nga xam ni mu ngay jox 5 millions de francs CFA Viviane Chidit moom aussi mu daal di payer des paires de lunettes yi nga xam ne daal dina koy jëndee lu toll ci 5 millions de francs CFA Aïda Samb nga xam ne teewoon na fa aussi ak borom këram mu daal di jënd des paires de lunettes yi nga xam ne mu ngay jax 3 millions 500 mille francs CFA lii yëpp nag ci vente aux gens cher la amee mais c'est pas que prix nga xam après ci li nga business bi moo nekk li mel la nga xam dañu koo jëf ngir di jàppale xarit ak seen góor bi nga xam dafa dafa euh, lancé li nga xam ne business am ñu ngi koy félicité di ñaanal